loolu daf ñu won ne àll bi diggante 2007 ak léegi àll bi am na foo xam ne nii gën na naat gën na taxaw mais am na feneen foo xam ne nii àll bi dafa commencé yàqu te loolu yëpp yàqu-yàqu li ko indi mooy nit ñi dañuy gor daay bi day ñëw nawet bi ndox mi day wàññeeku am na ñoo xam ne aussi dañuy gor euh, pour jox seen jur ñii dañuy gor pour yóbbu dem jaayi bant yi ba siyee ko menuisier yi parce que ku ci ne bëgg naa meuble meuble ci bant lay jógee donc euh, loolu aussi nit ñi dañuy dem commander meuble doo xam ndax bois régulier la am régulier léegi yooyu yëpp day indi yàqute àll ak trafic de bois bi mais loolu tax na ñu xam ne àll bi fi nekk nii depuis 2007 ak léegi li nga xam ne mooy stock de carbone mooy tooke bi nga xam ne nii ñun moom la ñuy noyyi mbala moo jóge ci oto yi mbala usines yi léegi euh, loolu xaw na wàññeeku parce que garab bu wàññeeku euh, dootul mun a am ñu ñu jëlee tooke boobu parce que ñun dañuy noyyi gaz carbonique euh, garab yi ñoom ñoo ñoom ñoo koy jël bu fekkee wàññeeku nag loolu day yokk tàngoor bi léegi loolu gis nañ ko dafa wàññeeku mais ci wàllu compte garab yi garab yi dañoo yokk mais xam nga bu dee garab yu ndaw ni mu mën a séquestrer carbone ak garab bu mag du doon benn donc mais loolu mun nañu euh, am xel bu bu bu dal ne comme am nañ ay ay garab yu ndaw ci biir àll bi mën nañ ne ah àll bi dina dina des àll bi dina continuer parce que dëkk bu la ëppee ay ndaw moom dëkk boobu moom mën nañ xalaat ne ëllëg mun nañ ci rafet njot dëkk boobu dina mën a gën a développer loolu nag gis nañ ko ci inventaire yi nga xam ne moom lu ma am euh, donc moom la ñuy wone tey euh, pour nit ñi mën a xam ne àll bi daf fi nekk pour jëriñ askan bi mais àll bi dañ ko war a toppatoo te nan lañ ko war a toppatee dinañ ko wax nit ñi parce que mécanisme red plus bi nga xam ne commencé nañ ko loolu mooy mun a wax ñu ñu xool tënk téere boo xam ne nii ñëpp buñ ci tënkoo àll bi dinañ ko mën a jëriñoo mais mu mun a sax donc loolu moom moo ñu dajale tey.